Assalamualaikum, welcome back dal leen ak jàmm beneen yoon namu naa ci youtube bi di Sencours TV ngir jàng anglais jare ko ci wolof ànd ci ak Mr Ba ok nañu tambali bi ñu moy name name moy lan ci anglais moy tur dinañ la jox nag exemple pour nga gën comprendre ndax ci name rek la ñuy dedet name nañu ko dégg mooy lan tur waaye last name mooy lan mooy gis nañu last ak name te name njëkkoon nañ ko gis last name mooy sant niki noonu family name mooy lan mooy sant moo tax ñu bokk même melo maanaam last name family name niki noonu dinañu amaat nickname nickname bu ñu ko waxee mooy dàkkantal nu ñu lay dàkkantale waaye amaat beneen muy middle name middle bu ñu ko waxee ci anglais mooy ci digg bi middle mooy ci digg bi bu ne middle name mooy bu fekkee noo bi dafa gudd ci partie bi nekk ci digg bi loolu mooy middle name dinañ la jox exemple ci bu ñuy demee ci loolu di ko leeral incha allah bi ci kaw mooy lan neem neem mooy tur boo ko gisee ci sa données personnelles neem mooy tur boo ko gisee ñu bind ko ci di la ko laaj wala ñu wax ko mooy tur last name mooy santo dañ koy jëfandikoo des fois ñu jëfandikoo family name mais exemple ci name ak last name ak family name mu ngi mel ni mën a doon jox turu ki nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop gis nga couleur bi cheikh gi mooy mën nañu wax ne mooy neem gi anta maanaam cheikh gi ak anta gi boo leen boolee neem la mais anta Diop kon boo xoolee dafa am ñetti parti cheikh ak anta Diop bu ñu ne cheikh gi mooy neem fii dama ko joxe exemple waaye bu ñu ne anta gi mooy midaw gi bu ñu ne Diop gi mooy last neem gi pour de boo gisee ñu bind neem rek te waxul lance neem xamal ne dañoo jublu ci ne Cheikh Anta Diop maanaam lépp lañ lay laaj sa tur boo gisee ñu bind neem ak lance neem Cheikh Anta gi mooy nekk neem waaye Diop gi mooy nekk lance neem gi boo gisee ñu bind ne your name and your rek xamal ne ba léegi loolu lañu la laaj Cheikh gi ant gi nga def ci fi middle name gi middle gi waaye last gi nga def fi Jóob gi incha allah nga bàyyi xel bu baax li may expliqué foofu donc façon yu bari la ñuy joxee tur la ñuy bindee di la laaj say information dina ci indi yu bari pour nga comprendre incha allah boo ko gisee nañu dem ci beneen partie bi. ba léegi ñu continuer ci beneen partie bi buñ ne date of birth wala. birth date birth mooy juddu moo tax ñu naan birthday sa fan bi nga xam ne nga juddu date of birth wala birth boo gisee ñu bind mooy wax fan bi nga juddu ak ci weer bi ak ci at bi age age boo ko gisee mooy li nga am see at nombre at yi ok date of birth wala birth date ci ban format lañ koy bind format bi lañ koy gën a bind mooy DDMMYY lan lañ tekki ak lan lañ si jublu DD mooy day maanaam fan bi foofu nga koy bind MM mooy month manam, weer bi foofu nga koy bind waay waay mooy year manam, at bi ci fii nga koy bind ci format bi lañ koy bindee nag léegi buñ defee lii de may la espace boo bindee nii nga koy bindee fi tolloog day dii foofu ngay bind fan bi mu tolloog muy day waaye fi tolloog mm foofu ngay bind weer bi mu tolloog muy month fu ñu bind waay waay foofu ngay bind at bi nga juddu mu tolloog yee ñu bàyyi xel bu baax a baax gis na ci format yii nii lañuy bindee lu bari ci buñ la bëgg a laaj maanaam date bi ci boppam date mooy date date of birth mooy datu te date naissance bi nga juddu dañ koy bindee ci beneen même forme beneen forme muy birth date maanaam juddu date dañ koy bindee noonu comme ko bëgg a tekki bul fàtte li ma la wax ne dd bi mooy day bi fan bi mm bi mooy month mooy weer bi waaye waay waay bi mooy yee mooy at bi ñu continuer ci beneen partie bu ñu demee ci beneen partie bi nga xam ne moo concerné fan la ñuy laaj barab bi ñu nekk bi si njëkk si moo yooyu ñu gën koo miin wala gën koo mën a xam muy adresse adresse mooy fan ndax mooy fi ma juddoo rek déedéet boo nekkee ci réew moo xam ne juddoo fa adresse bi ñu lay laaj mooy fa nga nekk maanaam fa nga nekk ci réew mi loolu mooy sa adresse adresse niki noonu tur yi mën a jëfandikoo bokk na ci muy lan. gannaaw adresse bi lu ñu war a mën a jëfandikoowaat muy located located mooy ba léegi fi nga nekk location moom mooy noo bi maanaam noo la moom itam boo ko gisee ñu bind ko mooy fi nga nekk ba léegi maanaam fi nga localisé donc located ak location bu ñu bindee adresse nga gis ko xamal ne fi nga nekk la mën nañu amaat yeneen noo wala yeneen format yu ñu mën a bindee laaj ñi comme home address ba léegi home address mooy fi nga nekk mooy sa adresse domicile walla place maanaam barab bi nga nekk barab bi nga nekk walla street mooy mbedd bi nga nekk boo gisee ñu bind street mooy mbedd bi street mooy mbedd donc kon bu ñu joxe information yu bëri da ngay gis ne dafay am changement adresse comme ni ma la ko waxee mooy fi nga nekk located mooy fi nga localisé bul ko fàtte located buñ ko bindee location ba léegi mooy nom bi ndax locative dafa am ci beneen forme bu nekk home address ba léegi mooy adresse domicile bul ko fàttee ndax ma répété ko pour nga bañ koo fàttee niki noonu bu ñu waxee place mooy barab boo gisee ñu bind yi yëpp maanaam binduñ adresse binduñ locative ñu bind place mooy barab bi boo gisee bind yooyu bind street mooy mbedd bi home address nag ak street dañuy ànd ñuy jubli si lan fi nga dëkk waaye ak mbedd bi ñu demaat ci beneen partie mooy partie bi nga xam ne moo concerné lan lañu nan la ñu mën a jotee yan jëfandikookaay lañuy jëfandikoo pour mën ñoo jot ba léegi moom itam ci noo yu bari lañ la mën a jox nga bàyyi ko xel bu baax a baax bi si njëkk mooy mën nañu bind wala fi ñu bind phone mooy sa numéro téléphone laaj la marque téléphone bi de laajuñ la sa téléphone nga joxe ko de waaye numéro téléphone bi loolu mooy fond boo gisee ñu bind ko si fooy boo xam ne donc sa adresse la ñu soxla wala sa information personnelle la ñu soxla beneen bi mooy mën nañu bind phone number phone number fi ñu ko bind mooy sa numéro de téléphone la soxla phone number moom nga fay bind wala ni ki noonu mën nañu bind contact bu ñu bindee sa contact mooy ba léegi sa numéro téléphone fu ñu la mën a jotee moo tax ñoom ñu bokk même couleur ma des ko nga comprendre que ne benn si bu ñëwee rek lii la ñu jublu waaye du ñu dajee ñoom ñëpp ci benn partie ok phone wala home wala phone number walla li nga xam ne mooy contact. niki noonu ci information yooyu ñu mën ñu jotee bokk na ci mooy email kese buñ ko bindee. nga gis ko mooy sa email la ñu soxla email mooy sa email adresse fi ñu la mën a jotee ba léegi fi ñu la mën a jotee ci wàllu message beneen bi mooy mën nañoo bind tim email adresse nga gis ko nii mais dama lay wan format yu bari yuñ mën a jëfandikoo pour nga bañ a concentré wala sukkandiku ci benn rek boo gisul beneen bi fii nii nga jàpp ne du moom boo ko gisee si beneen fooy yii yëpp lañ mën a indi mën nañoo indi email kese. bind ko waaye mën nañoo indi email adresse ba léegi bind ko nga xam ne kon bu boobaa ñaar yëpp boo ci mën a gis rek li ci jublu mooy sa adresse email ok bi ci kaw mooy phone number boo ko gisee moom kese mooy sa numéro téléphone eh, phone kon mooy ci numéro téléphone phone number ba léegi mooy sa numéro téléphone waaye sa contact mooy sa numéro téléphone ba léegi moom la soxla ndax foofu lañu yem déedéet nañu dem ci beneen partie bu gën a gën a am solo muy lan wàllu code lu aju si wàllu secret yu ñuy soxla ci nit ki bokk na si bu ñu zip code mooy sa li nga xam ne mooy sa code postal donc boo xoolee am na réew yoo xam ne yu bari ñu génn xam nañu ko kër gi dafay am numéro waaye mën naa am mbedd bi dafay am numéro loolu mooy zip code beneen bi mooy ID ID buñ ko waxee fi ñu bind sa ID mooy fi nga war a def sa numéro identité waxuma la sa numéro carte d'identité waaye buñ ne ID te fekk information yu ñu soxla si yow moo ngi aju si sa permis loolu mooy numéro permis bi nga ci war a def bu dee sa carte d'identité la soxla te numéro carte d'identité moom la ñuy soxla nga def foofu loolu mooy sa ID mën nañ ko bindee nii muy ID kese waaye mën nañuy def ID number nga gis ko muy lan sa numéro identité waxuma numéro carte d'identité ndax li lay identifier carte d'identité benn la ci moo tax muy lan muy PIN wala personal identification number. mooy sa code PIN bu dee ci wàllu compte bancaire sa code PIN bu dee ci leneen loo xam ne code la ñuy joxe sa code lañ lay laaj muy code PIN wala fi ñu bind PIN mooy sa code bi donc loolu lañ dafay laaj pour nga mën koo def mën nga ko fa mën nga mën ko fa dugal ci ay france yu bari yu wuute nag lañ mën a jëfandikoo laaj ñi ko pour ñu jàng ko xam ko bu ñu déggee ñu wax ko wala ñu bindal ñi ko ñu xam lan lañ si jublu ak nan lañ koy joxe incha allah phrase yi bi ci njëkk mooy what is what is pourtant defuma yoote defuma dara ndax bu fekkee ne yow sa information lay soxla ci laa lay doog wax what is your lan what is your name fii la your gi di nekk name gi fii lay nekk what is your name benn la si phrase yu ñu mën a jëfandikoo laaj ma sama tur benn ni mën nañu jëfandikoo beneen phrase muy daan give me your name wala give me your address wala give me your zip wala give me your location gis nga mën nañu jëfandikoo what is your name ci kaw what is your address ni ki noonu what is your phone number waaye what is your email kon phrase bi mën nañ ko jëfandikoo ci yépp information yi ñu romb léegi ni ki noonu mën nañoo wax ni remind me your remind me your name fàttali ma sa tur remind me your address fàttali ma sa adresse waaye mën nañu jëfandikoo ba léegi write down your name e write down your name mooy bindal si bindal fii sa tur write down your address write down mooy bindal sa bindal sa bindal sa wala mën nañoo wax ne spell your name mooy nga bind ko nga éppale ko boo ko mënul bind nga wax ko lettre par lettre ñu mën koo dégge manam nga wax ben par ben ñu ne lay spell ali nga ne a ñu bind nga ne l ñu bind nga ne i lool mooy spell léegi nan la def mooy nañu jéem wut phrase yoo xam ne ñun mën nañ ko jëfandikoo pour mën a jox sunu adresse wala sunu information yi ñu soxla si ñun bis njëkk si yooyu mooy mën nga wax ne my name is maanaam my après ñu plus si li ñu soxla my name is Ali My maa to do Ali Job. bu dee sant bi nga bëgg wax my last name my sama Santa. wala my middle name fi nga mën a my my may nangam bu fekkee yow yaay joxe sa information niki ki noonu nga my address is nga to do address be. ci beneen façon boo mën a joxe mën nga wax here is my manam here is my name here is my address ok sama tur lii mooy sama adresse thank you gudd na waaye détail bi moo ko laaj ci benn par benn ci ki nga xam ne moo ko bëgg jëfandikoo incha allah donc di leen fàttali rek ngeen di abonné te di like vidéo yi ndax youtube di ko mën a jox ñeneen yi incha allah te di commentaire tim boo amee yenn question ñu mën koo tontu ci biir ok 来呗。